asalaamaaleykum mbokku Sénégal man la Youssoufa Niang candidat Benno Bokk Yaakaar dakaar ñu ngi jëm ci ay élections le 31 juillet 2022 di woo Sénégal yëpp ñu jëm ci élection yoo xam ne élection yu dal lay nekk di ci woo sama bopp mais di ci woo ñëpp ñu jëm ci élection yoo xam ne dafa war a nekk élection yu am dal ndax Sénégal jàmm rek moo ko jik di wax nit ñi aussi di wax la jeunesse nañu voté Benno Bokk Yaakaar ndax tey njiitum réew mi dañ ko fal mu am lu mu commencé war ko yeggali te li mu commencé mooy def na les fondements talal na autoroute yi autopont yi génn na donc yaakaar gën na dolleeku kon li ci am solo mooy ndaw yëpp mobiliser wu xam ne dañ leen woo si tabax réew mi te ëllëg réew mi comme ci ñoom la jëm dañu war a mobiliser wu le 31 juillet ñoom ñëpp ñu dem voté ji Benno Bokk Yaakaar ndax voté Benno Bokk Yaakaar mooy tax ñu mën a aar jàmmu Sénégal mooy tax pétrole bi nga xam ne Sénégal am na ko ak gaz ñu mën ko jëfandikoo si dal ak jàmm ba nga xam ne ñëpp nañ ci mën a gis seen bopp loolu nag pour mu am il faut que ndaw ñëpp jug voté ci massivement voté Benno Bokk Yaakaar ndax réew mi ku ko gis ni mu commencé changé xel wal na dal donc kon ñi ngi woon ndaw ñëpp ñi nga xam ne jëleguñu woon seen carte électeur ñu dem jëli ji ko au soir du 31 ñoom ñëpp ñu dem voté Benno su ko defee li nga xam ne président yéene woon na ko mun ko eggalil Sénégalais yi muy njariñu ñëpp. asalaamaaleykum mbokku Sénégal man la Ami Yaya Diallo candidate Benno Bokk Yaakaar bu département de Bakel yéen lay waxal yéen sama mbokku jigéen ñi jigéen ñi nekk si tool yi. nekk ci bureau yi nekk ci géej yi jigéen ñu jàmbaare yi yéen ñëpp laay waxal euh, dama leen di ñaax ñu voté list Benno Bokk Yaakaar ndax kat voté liste Benno Bokk Yaakaar mooy voté suñu bopp mooy bëgg suñu bopp mooy jàppale président Macky Sall mu yeggali yéenem ci ñun tey ñëpp xam nañ ne ne ku fi falu jigéen moo la fal te euh, président jël list Benno Bokk Yaakaar jiite ci jigéen e je pense que ñun kese ñoo ko am ci liste yi fi nekk yépp loolu rek doy na sag asalaamaaleykum man bandiraabe haalpular en kamino ami yaaya diallo candidate euh, benno bokk yaakaar département de bakel euh, min ngari ɗo hannde pour haannude on e teddinde on e ñaagaade on aussi yon gootan liste benno bokk yaakaar o par ce que wootande liste o woni yidde wallude sénégal gooto e mo fone anndi président makisal to itti en e to faani en Euh, hande noon pour yimɓe mballa mo il faut que yimɓe jalta le 31 juillet inchallah goota massivement beele président wawa heɓde majorité e assemblée nationale o acci noon hakkille e rewɓe par ce que sa daari hannde minen min gummi ka bakkel komin sukaɓe ɗum o faami hannde ko sukaɓe e rewɓe jeeyi leydi ɗum taki o acci hakkille e rewɓe hannde o waɗi tedde liste makko debbo euh, e sukaɓe minen sa daari liste benno bokko yakar ɓuuri hewde sukaɓe ɗum noon banndiraaɓe fulɓe enen fof eɗen ñaaga ngoote gootonen gooten list benno bokko yaakaar o allah maa ngi nuyu ñëpp maa ngi tudd Mame Gueye Diop nekk candidate au niveau de la liste nationale benno bokk yaakaar may woo sama moroomu ndaw yépp di leen ñaax le 31 juillet 2022 inchallah rabbi ñu ànd ñun ñëpp dem voter le président Macky Sall c'est-à-dire la liste benno bokk yaakaar li tax may wax loolu nag mooy président dafa am lu mu diggoon sénégalais yi mu ngi ci di ci def lu am solo infrastructure de base yaa ngi fi infrastructure sportive yi lépp moo ngi ci waaye nag loolu doyul moo tax nag ñu bëgg ko may une majorité confortable à l'Assemblée nationale ba nga xam ni lépp loo xam ne rek yéene la ba mu am jëmale ko ci sénégalais yi en général mais ci ndaw yi rawatina ñu mun ko mottali la preuve suñu liste parmi les huit listes mooy liste bi nga xam ne moo ëpp ay ndaw te président Macky Sall yaakaar naa ni kon jox nañu kaddu ni ñu dem leen fa ngeen ko war a waxee ngeen waxee ju ko fa infrastructure yooyu nga xam ne def na ko arène baa ngi fi Dakar Arena mu ngi fi stade Maître Abdoulaye Wade récemment mu jël plus de vingt milliards def ko pour réhabilitation quatre stades kon encore une fois maa ngi woo sama moroomu ndaw ñëpp di leen wax ni présence bi si yi neex na lépp neex na waaye nañu voté pour que suñu moroomu ndaw yooyu mën dem assemblée lépp loo xam ne jafe-jafe ndaw la waxumala la jafe-jafe ndaw bu bokk benn Bokk Yaakaar mais képp koo xam ne ndaw nga nekk ci biir Sénégal rek bu ñu demee ñu mën la yóbbul quel que soit parti boo bokk quel que soit communauté boo bokk quel que soit foo mën a nga nekk dans la jaspora wala nga nekk au niveau national mais fépp foo mën a nekk rek nga xam ne ndaw ya fay dem yéen la ñuy représenté ji infrastructure yi aussi mooy Ila Touba baa ngi fi mais VDN bi man fa ma dëkk Cambérène laa jóge VDN bi da ngay romb normal doo am benn problème boo xam ne rek am nga ko pour mën a jàll dem circuler normalement kon encore une fois li war a tax li war a tax ñu votel benn Bokk Yaakaar région yi bëri nañ kon nag dañu jàpp rek te xam ni incha allah rabbi votel benn Bokk Yaakaar c'est soulager les populations sénégalaises